Lian balu ak te len ko bal te ñaan sunu borom subhanahu wa taala mboole nu jégal suñu waxtaan tay dañ ko jëme ci fat len te lo xam lu am solo la ci sunu doxine te melni ni jamono indina aw melokan wo xamne mi ngi koy so xel lola moy teunku ci kiliftef yi seetlu ñep seetlu nañu ne nit ñu bari ñi ngi tàmbalee tinkiku ci kiliftef ñu bari ñi ngi jitu seen kilifa ci ay wax mba ñu koy jitu ci ay jëf ñaka dal ak ñaka no nosu itam tambalé di tasaro am ño xamné eh, dañuy woté di wax ay maqama ci seen bop yo xamné dafa melni dañu bëgg teunk mbolo mi ci seen jëmmi bopp yoo xam ne ñu leen toppee ci ñoom lay ne te li ñu xam ñun ñëpp mooy ne yaakaar yëpp mi ngi daje ci jenn jëmmu mooy sëriñ bu mag bi radiyallahu taala anhu moom moom moom la ñëpp yaakaar mbooloo mépp moom lañ topp ñu nekk ci bopp mbooloo yëpp ay jëwriñ lañu yoo xam ne sëriñ bi leen jëmmi sëriñ bi leen di xoole moom lañ leen di toppee Euh, kon yooyu yëpp di ay mbir yoo xam ne tax na ñu war a delloosiwaat suñu boppu nafaraat kilifteef gi ñu jàngal te yar nu ci ñu jéem cee gën a tënkuwaat kilifteef dafa am solo lool tënku ci kilifteef dafa am solo lool ndax mooy sàmm nosub mbooloo mi mooy waral ak dal mooy tax jàmm am mooy tax mbooloo mépp nekk ci genn kàddu kilifa yor ko muy kaddu gu dëgër gu yëkëti mbolo mi di leen teural moy taxit ñu wet mbolom julit mi moy tax ñu bayi leen xel mo leen di may kàttan moy tax lepp luñu jëm ci ay naal ñu man ko tam tam ni ak yeneeni njariñ yu jeex yo xamne nek na ci nosu ak teunku ci kiliftef tënku ci kilifteef mooy tax a mucc ci seytaane mooy tax a mucc ci ak yàqu yonent bi sallallahu alayhi wax na ne seytaane kenn lay topp waaye bu gisee ñaar mbaa ñoom lay gën a ragal ndax ñooña dañu daal tàmbalee nosu tàmbalee am tënku ci kilifteef kon tënku ci kilifteef nekk na lu am solo loolu moo tax mbolam julit mi fuñu mëna nek l'islam da len di teunk ci gilitef tambalé ko ci bir kër ya ci bir kër ya ña fay dundu l'islam tënk na len ci gilitef bu dé soxna yi euh, seeni kilifa moy seeni boromi kër bu dé dom ya ak njabot ya seeni kilifa moy seeni waajur kon ci bir kër gi wajuri kër yi ak wajur yi ñoo fay kilifa ñoom la njaboot ga war a déggal war leen a topp war a wéy ci seen waaw tënku ci seen ginnaaw bu ko defee kër gi dana dal dana dox dana jaar ci yoon te lu ñu bëgg itam ci lu ko yéwénal dana mën a sotti moo tax sunu boroom waral ci képp kuy jigéen ku ne ci biir kër mu tënku ci kilifteefu boroom këram الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من nag kër yi jigéen ñi góor ñi ñooy kilifa jigéen ñi jigéen ju nekk rek dana am kilifa goo xam ne gu ko yàlla boole goo xam ne góor lay doon ak fu ak dundam ba ba muy diir dundam rek war na am kilifa bu dee ki demagul kër waajuram mooy kilifaam bu dee ka dem kër borom këram mooy kilifaam budé ka dem kër ba am jabor sax ay domam yu gor la l'islam wax ne ñoo di kilifaam ah, ak kon nona lay démé nga xamné kenn jenn jigen du ñak kilifa mukk ci diru dundam bu féké tanku na ci liko l'islam sante sant bi fi wajuram nekké kon moy kilifa am ci biir kër gi su wajur wi rando ay doomi kessé nek fa kamak mag ca njaboot ga ci dom ya moy dal don kilifa keur ga yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne haqqu kabir al abi aw xaqul walidi mune ay bok buñu ñu ci keur nga xam wajur wa na fa kon ka mag ya mom àqi moy taxaw moy am àqi wajur, mom lañu war tek fañ wa di top topp tokke toppe nañ kon non la nosé l'islam non la nosé kon biir kër tënk ko itam ci kiliftef bu ñu génnee ci biir kër gi ñew ci askan wi askan moy ñi bokk menn maam ñom ñepp it lislaam dafa sant ñu jokk seen bokk boole seen bop am ko xam moy seen kilifa ñom ñepp wa askan wa euh, ñan Nyan, ko féete suuf diko ko mom ma ca fété ci kiliftef ga itam mu len di jité di len taxaw di len dimbalé ci na mu gëna a askan wépp àndandoo di dox doxé wu rafet bu ñu demee ca jàkka ja moom nos nako ci kiliftef bu ñu xasee liqaam ba taxawal julli imam bi kon moy kilifa mbolo mi ne ci ginaawam top ko ci julli gi di fek muy selmal kon dañuy teunku ci kilifteefam dañuy teunku ci ginaawam du def luddul ginaaw bu defee bala armal dañu nek bam armal bala selmal dañu nek bam selmal luñuy def lu nekit dañu war nek bam def ko ba nopi ñu door ko def kon ci ginaawam lañuy ñuy ci kiliftefam mom imam joju itam bu fekke doonul ne moy kilifa gu maggi jité mbolam julit mepp su boobaa dañuy japp ne kiliftefam gogu mu am ci biir julli gi da ci wuutu kilifa gu maggi manam naayib la ci kilifa gu maggi ndax lolu muy def cëru kilifa gu maggi la kon da ko ca wuutu kon moom it daal dinay am kilifa noonu la ko tënkee bu ñu demee ca daara ja daara ja mooy fa ñuy sàkkoo xam-xam di fa jànge alquran mbaa ñu fay jàngi xam-xamub diine wala ñu fay jubbantikoo mbaa ñu fay dégloo ndigal te ka fa jiitu ñu koy tuddee ab sëriñ kon mbooloo may askanu foofe ca daara jooje ca kilifa googee ñoom it lislaam nos na leen ñu war a tënku ci kilifteefuk kilifa ga leen jiite di déglu ay ndigalam di bàyyi ay tereem di dox ci ab joxañam ñoom it noonu la leen lislaam tënki ca kilifte gu ñu war a topp ci ginnaaw seen kilifa kon mbooloo yépp mbooloo mu ne ci diine am nga kilifa goo xam ne ca ngay dellu di ko déglu moom it mu am kilifa gu muy dellu di ko déglu bu ñu demee ca xare ba muy ca mbooloo soldaar sa nga xam ne ñooy aar xeet wi di aar diine ji ñoom it dañuy tënku ci kilifteef dana am ku leen jiite koo xam ne ndigal la nañuy déglu ñu nosu ca gannaawam mu leen di jiite ci ni ko lislaam santaane moom it muy déglu ndigalul kilifa gu mag nga xam ne moo nekk ci boppu xeet wi noonu la lislaam di nose kilifteef yi ba mu yegg ci kilifteefu kilifteef gu mag gi kilifteef gu mag gi nga xam ne ka ko yor mooy aar diine ji di wommat xeet wi di leen digal di leen tere di leen e, teete ñoom ñépp it ñu war a tënku ci gannaawam kilifteef gu mag googee it am na kilifteef gu ko ëmb ndax kilifa gu mag a alxalifa lañ koy tuddee xalifa mooy tudd aji wuutu kookee kum wuutu bu dee ci lislaam dañuy wax ne yonent bi sallallahu la wuutu ndax yonent bi la yàlla yónni wàcce ci moom alquran mu jàngale ko tasaare ko eh, wutu yàlla ci kaw suuf moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kii kilifa jullit yi ci kaw suuf yonent boobu nga xam ne moom xeet wi te yàlla jiital ko moom la wuutu bu ñu dee wax ci taalibe dañuy wax ne kilifteef gu mag gi kilifteef gu mag gi ki ko ki ki ko tooge jëmmi sëriñ bu mag bi la wuutu Cheikhul Xadim radiyallahu anhu kon moom la wuutu sëriñ bi moo fi nekkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon noonu lay lañ koy toppee nga xam ne saa su ne rek kilifteef gu ne rek am na kilifteef gu ko gën a kawe ba bu ñu àgg ci ki nga xam ne moom lépp yilif lépp mooy sunu boroom nga xam ne kay bi ak yonent ya ko ñoom ñëpp it moom lañ ci kilifteefam lañ nekk moom lañu wut ci kaw suuf yàlla naa ngi wax ci alquran yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah yow Daawud defna la nga wutuma ci kaw suuf di doxal di ar diine di doxal deug di tete kon na nga atte ni ñi ci deug te bul top sa bànneexu bopp euh, kon nonu la l'islam tanke mbolo yep ci kiliftef ngir njariñ ngir solo si nga xamni kiliftef amna ko ak karang gi mu ëmbal xeet wi taxna kon bayiwul benn yoon mbooloo mi ñuy dox noonu rek ci e, ci seen sago ak seen bànneex ak nañu gise, waaye ñoom ñëpp dañoo war di tënku ci kilifteef di déglu kilifa di dox ci ay ay joxoñam di jëm fa nga xam fale leen jëmee moo tax e, suñ di digle ñuy topp yàlla di top yonent ya, bi sallallahu alaihi wasallam di digle it ñu top kilifa yi ya ayuha alladina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tuminuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu tawila mu ne ñi gëm yalla ñep di ay julit nañuy top yalla li yalla digle ñukoy top topp di top yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam top seeni kilifa yi nga xamne ñoo leen jité ñu nak ci seen ron bu ñu amé ak juyoo ci seen biir nañ ko delo ci yàlla ak bu yonentam te déglu ci itam seeni kilifa lolu mo gën te mo gëna mo gën di doxin mu rafet moo tax mu waxaat feneen ne wa iza jaahum amru min lamni aw al khafi azaa'u bih wa la radduhu ila ar rasuli wa ila ulam minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا mu ne léeg-léeg mbir xew coow lu bari juddoo ca nit ña di ca soow aka wax aka def def la leen seen xel may mu ne waaye bu fekkoon ne dañoo tënk woon ci kilifteef déglu seeni kilifa euh, kon daañu leen teg ci yoon woo xam ne euh, danañ ca mucce danañ génn itam ca jafe-jafe yooyu nga xam ne moo leen di jural coow euh, mu ne bu duloon ak gëneelu yàlla ak yërmandeem moom mi nga xam moo sàkk ay kilifa diggal mbooloom ñu tënku ci seen ginnaaw kon nit ñi ci topp seytaane la ñuy dëkk waaye kilifa mooy dox diggante nit ñi ak seytaane ba bu seytaane wootee ñu ñu nar ko wuy ji kilifa dox seen diggante ak moom daal di taxaw moom fa fa dëgg nekk fa njub nekk fa ak mbaax nekk euh, daal di fay woote su ko xee mbooloo mi gindiku daal di koy topp daal di wan ginnaaw seytaane kon loolu tax na ñu war fonk bu baax kilifteef te war cee tënku ni ñu waxe ci lislaam ni mu nosee kilifteef sëriñ bi nga xam ne moo yeesal diine ji bi mu ñëwee loola la indi moom la feddali ba suñu yoon wi kon sering bi bi mu ñëwee itam yaasal diiné ji kilifteef googu la wat tank mbolam julit mépp ci kilifteef bi mu dikkee yoonu mourid bi mu ko xalé te mooy yoon wi taxa yi nit di jaar ba mëna yegg ci yàlla am gëreemam dafa wax né ku bëgg ku ca bëgg soobu da ngay tanku ci man talabal wusula lil jalili فليعتصم بسنة الرسول بأن يلازم مطيعا لا يميل في ظاهر وباطن عن السبيل يقوده بالعلم والعبادة كما يربيه بترك العادة mu ne ku bëgg a yegg ci yàlla da ngay moy ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay jaar ci yoonu yonent bi sallallahu jaaroon ak i saxaabaam mu ne loolu nag ni nga koy defee mooy da ngay am kilifa goo xam ne day teg tànkam ci sunna yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam Depok mom ci zahir dëppoog mom ci batin nga xam du jang ben yon nga jebal ko sa bop wamatu ci ginaawam mu wamat la ci yoonu xam-xam ak jaamu yalla ak yar euh, kon motax kep kuy di talibé rek li ngay jëk def ni ngay duggé ci yoon moy wuti kilifa moy da ngay jaayante ka nga jaayante moy don sa kilifa ci yoon wi kon mom jéggu bi jëk ci talibé am kilifa ta moy jébulu jébbalu moy wut kilifa rek koo xam ne moom ngay jàppe muy sa kilifa ci diine ji ci yoon wi def sa di sa jawri nga di ko déglu mu di la womat kon loolu mooy euh, cosaanul tabaxub yoon wi noonu itam moo tax ñam mu njëkk a defar moom mooy kilifa ñëpp ñu njëkk a doon ay kilifa moo leen defaral boppam ba noppi ci ñoom samp leen yebal leen ci ay gox ñu doon fa ay kilifa di defaree ñoom itam loola di law ba jur ba yoonu murit am ay kilifa yu bari sha allah yalla yalla sam mutaar yo xamni yoo kilifa gune amna am na mu top ci ginnaawam di ko kilifa goge top ci ginnaaw kilifaam bañ yegg ci kilifa gi nga xamne ne yilif ñep ñep di ko mbolom talibe yep nosu ci ben ben baat ci genn boom di deglu genn kilifa mo len di euh, digel ak len tere ba loolu gis ngeen li mu jur ci ay njariñ ci dal gi am ak jàmm ji ak euh, jàpp ne gi nga xam ne naal yi ñuy naal di ko liggéeyal lislaam di ko sëñ jàpp ne gi muy jàpp ne ndax nosu gi ak tënku gi ci kilifteef loolu ñëpp gis nañ ko kon loolu euh, ëpp naa yàq ëpp naa def lu wuuteeg la nga xam ne moom lañ ci xamoon kon lislaam dafa sant nit ki mu topp kilifaam li ñu war kon ci suñu digganteeg suñuy kilifa mooy ñu nangu kilifteef nit dafay nangu kilifteef nit ku nekk am nga ku la yilif ku la yilif wala ñu la yilif sax ndax fu ne am na fa ku la fa yilif boo demee ci kër ga am na ku la fa yilif boo demee ci jàkk ji am na ku la fa yilif boo demee ca foo dem rek am na koo xam ne moo fay sa kilifa ba ngay àgg ci kilifa gu màgga kon nit ki nangu kilifteef yi ay kilifaam te tënku ca bañ a nangu kilifteef kon moo jëkk bu nit ki nangoo kilifteefam day day day déglu kilifaam topp kilifaam topp kilifaam te bañ koo jiitu bañ jiitu sa kilifa bañ a juyoog sa kilifa yàlla muy wax ci alxuraan yaa ayyuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illaahi wa rasulihi wa taqullah inna allaha alim yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu ab yonentam na ngeen ragal yàlla topp yam ci di topp ndigal ak bàyyi tere ak déglu kilifa gi te mooy yonent bi sallallahu alayhi ndax yàlla mi ngi dégg xew mi ngi xam kon noonu mu digale mboolam jullit mépp ñu tënku ci topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi mooy kilifa ak ñëpp ci jamono kon ñi fi ginnaawam it ay kilifa yi moom lañu wuutu kon noonee ñu ko doon toppee noonu tam lañu war a toppee kilifa yi ko wuutu li fekk ñoom it ñu ngiy topp yoonu yonent boobu nga xam ne sallallahu alayhi wasallam moom lañu wuutu ah, bu fekkente nag kilifa gi juyoo naag kilifaam manam yoonu yon bi bu ak yoonu yon bi su boobaa kam yi yilifoon waru ko top ci lola loolu yonent bi saa su wax la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ken du top mbindeef ci lo xam ju yok ndigalul yalla kon kilifek li fek mi ngi top yalla di top yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom itam lañ ko wara top su ju yok ñoo ñu nga xam ñoo di kilifam nak war ju yok mom ci loolee mu yok ñom ndax ginaaw moom it juyoo naa kilifam kon ñi mi lif man nañu juyoog mom ci lolé mu juyoog kilifam du tax nak ñu kilif teef gi wala ñu bañ ko topati ci leneen lu mëna doon waye lam lam juyo rek lool lañuy baña top bo amé sa kilifa sa wajur wala sa ku mëna doon ko xam limu lay digal moy safan la yalla digal la tere lu la digal ma mu digal lu la téré lu fess lo xam kenn mënu ko layal su boba waro ko top ci lola waye du tax na nga gantu kilifteef ga war nga ko topati ci len lu la digal lo xamne mom moom na li juyeewut ak digalul yalla kon nañ top kilife yi te baña juyo ak ñom bañ len di jitu bañ bañ di ñom euh ndax jitu kilifa ak ak mom lolu moy mo koy firi moy firi kilifteef rek bu yagge rek day muju ñepp ku nek xal sa yoonu bop don sa kilifa bop te loola ak jaxasoo lay jur akuk ak seytaane suy yàq ak fitna te loolu yàlla na ci yàlla musal kon nañu gën a dellu saat xel bu baax gën a tënkuwaat ci kilifteef yamale ci kilife yi di leen déglu di topp seen digal di bàyyi seen tere te yàlla dëgëral leen ñoom itam euh, jàppale leen li nga xam ne moo war suni kilifa ci nun nag duñ ko wax ndax ñun suñuy kilifa la ñuy déglu kon ñu ngi tënk fi waxtaan wi di ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa